taxaw fii ci dëkk bu tedd bi ci dëkk wayjur bu jigéen bu sunu xalifa ak Cheikh Mouhamadul Bassir Tall yàlla na yàlla yokk fanam te dafa ko wér ci barke guddi leetu xadri bi nga xam ne moom gannaaw bi yàlla waxee ci alquran karim tudde ko saar wax ci inna anzalnaahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr xayru min alfi shahr tanazzalu almalaikatu wa ruuhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salaamun hiya hatta matil fajr loolu nag mooy sababu suñ teewaay tey fii ci caar incha allah ci soo ba léegi ñu ngi ci yàlla nag di ñaan yàlla ñu fekk ko at yu bari fekk ak ak mboole mbokk jullit yëpp ñu fekke ko incha allah ci barke muhammadin sallallahu alayhi wa tey jii nag ñu ngi fii ci journée de consultation médical gratuite ñi fi amal ci suba ba léegi nga xam ne day dem incha allah fii ba suba ki nga xam na na moo sos fondation bi nag di fondation soxna Adama Aissé ki ko dirigé di soxna Aminata Bachir Tall di doom ci Thierno Mouhamadul Bachir Tall moo waral lii yëpp ci jàppale nag euh, fondation Konu Santé bu hôpital régional bu Louga ci leen fi teewal sama euh, jigéen bi du ko mbawoon baax ànd ak Asseyda Aliou nekk membre ak man mii di wax ak yéen di Ibrahima Aboubacry Kane Racine kan di membre ci konu Cheikh Omar Fouti Tall tey jii nag ñu ngi ci consultation médical bi nga xam ne comme ni ma ko waxee woon ñu ko sabab mooy waa fondation Adama Aissé dirigé par soxna Aminata Bassirou Tall kon nag ñu ngi koy gërëm di ko sant indi na fi délégation bu takk macha allah garab yi doy na ci soo ba léegi ñu ngi xool nit ñi rang yi gis ngeen mbooloo maa ngi bu takk mi ngi fi incha allah gis ngeen fi euh, indi na fi ay médecin généraliste ñi ngi fi ay pédiatre ñi ngi fi ophtalmo ñi ngi fi diabéto mi ngi fi urgentiste yi ñi ngi fi médicament yi doy na ci njiital tamit sëtam di docteur Racky Ba teewaayam rafetlu nañ kon nag ñu ngi gërëm waa tund yëpp gis nañ seen taxawaay xale yu góor yi malgré tàngoor wi ñi ngi ci waañi liggéey lépp ci barke Cheikh Omar Foutiyou Tall yow bi Thierno Bassirou Mountaga Daha Tall di xalifa général kulli omarien ci Sénégal ak Afrique ak monde bi yëpp ñu fii ci Thiar fii fi xam ne mooy dëkk waajuru Thierno Bassirou Mountaga Daha Tall nga xam ne fii la jagleel leeltul xadre bi jagleel ko Thiar fi nga xam ne fii la waajurum jigéen Euh, soqe ko ñu ngi fii nag di def consultation gratit ci turu soxna Aminata Bassirou Mountaga Daha Tall mooy jiite fondation Ndiobou Adama Aïssa muy fondation bu yaatoo yaatoo yaatu yaatu fondation bu mag nga xam ne indi na fi équipe médicale ci ay médecins yu jóge Dakar ak médecins yu jóge Louga ak médecins yu jóge district am na ci ay médecins généralistes am na ci ay médecins pédiatres am na ci ay ophtalmo ñu ngi nii sama ginnaaw si suba ba léegi ñu ngi def consultation fi maye médicament gratuit di leen bindali ordonnance di saytu encore day am aussi en même temps suivi parce que yamul fii rek ndax ñun ñëpp benn lañu te ñun ñëpp ñoo dëkk euh, tamit bu ñu gërëmaat soxna Aminata Thierno Basir Mountaga Daha Tall mi nga xam ne yàgg naa jàpp si domaine santé. ndax du yàggul dara ci gannaaw euh, indi woon na fi conteneur 18 pieds bu defoon ay bu defoon ay échographe ay matelas orthopédiste ba defaale ambulance médicalisée indi na ko may ko hôpital régional Amadou Sakhir mbay bu Louga te loolu ñu ngi ko ci sant di ko gërëm yàgg naa jàpp santé bi ndax fa mu nekk ca France day yëngu si mbiru santé yàlla doxalu tiit euh, surtout muy doomam docteur Rakiba di chirurgien cardiovasculaire moom it mu ñëw indi médicament yu doy macha allah médicament yi nga xam ne oto bi da nga ko yob médicament ba mu fees indi ko rek ngir si bisu tey bi si bisu leylatul xadri bi nga xam ne initiateur yi muy Thierno Bachir Mountaga Daha Tall moo ko doon def fii si caar ba bis ni ko tey nii te ñaanal Thierno Mountaga Bachir Mountaga Daha Daha Tall yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér yàlla may ko kàttan yàlla may ko lépp lu mu bëgg si adunaam barkeel njabootam barkeel ay taalibeem bàyyi kook ay taalibeem sag la si senegal sag la ci Afrique sag la ci aduna kenn Mountaga Bachir Mountaga Ndaxal li lépp moo ko waral li lépp moo ko waral liggéey rek la xam ay doomam liggéey lañu xam ay sëtam liggéey lañu xam asalaam di Njobo aadama Adama Aïssa euh, di ko jaarale ci soxna Ami fuutiw taar borom bis bi bis bi rafetal na ko ba mu rafet dara dara dara manqué wu euh, indi na ay médecins mobiliser na leen def na ay moyens de transport def na moyen logistique euh, table de consultation yi dara manqué wu lépp ñëpp a ngi fi consultation oculaire am na fi Euh, consultation pédiatrique am na fi consultation diabéto am na fi euh, consultation urgentiste am na fi cardio yëpp am na pour ne citer que cela euh, médicament yi yëpp doy na ñu ngi koy distribuer di ko jox patients yi patients yaa ngi ñuy toog restauration bi bàyyiwul dara prise en charge ñii ñëw di faj bàyyiwul dara lépp mot na fondation bi motal na lépp wax ne yàgg nañ fi ñëw daal ren nag dañu am particularité parce que fondation bi bu Thierno Kër Thierno Bassirou Tall ñoo fi nekk ñu ñëw ànd ak ñoom macha allah am na spécialité yu bëri yoo xam ne ni ñu ngi fii depuis ci suba ba léegi depuis 9h nañ consultation bi am na ophtalmo am na cardio am na euh, consultation général kon daal di wax ne solo si ndaje si moom macha allah li ko waral nag mooy xam ngeen tey mooy laytu xadri caar laytu xadara bi nag bu ñu koy wax mooy kër Thierno Bassirou Tall ñoo tax ñu koy wax ngir màggal bés bi fii si caar pël nga xam ne nii fii lañ koy defee at mu jot bi wax ne daal macha allah garab yi am na ñi ñaa ngi ñëw ci suba ba léegi gis nañ ne eh, si wàllum bët daal xam naa ne gis nañ ne jàngoro doomu jàngoro yi nga xam ne day jaaral di jàpp bët yi lu ci mel ni ay cataracte lu ci mel ni ay bëtu xef nga xam ne ni dañuy faral def ay campagne ba campagne bi ñu ci mujjee def rek matul weer kon yaakaar naa ne bu ñu amee appui bu mel ni ophtalmologue te gis nañ ne zone bi loolu moo fi xaw a manqué fondation bi ñëw indi lu mel noonu yaakaar naa ne dañ leen sargal ci loolu di leen sant di leen gërëm. ene hawre leylatul hadre jamma leylatul hadre min garnoɗo notade activité de consultation médicale gratuit euh, e organise ɗum ko fondation jobbu eh, adama ayse voilà donc en tant que ouvrier de la santé donc euh, min gari minenne eh, wadde hen participation amen e hande aussi sa ƴeewi guila subaka amin ɗo activité ji ɗi nan waɗi des activités de consultations médecine générale, il y, a, des consultations de pédiatrie et consultations ophtalmo. Et aussi, il y a également urgence, oui. Donc, Sandari est, euh, est euh, journée oh, à 18h, presque, je euh, dois consulter a 400, 400 consultations. est réparti, est réparti comme suit. Et également, il y a 100 consultations ophtalmo euh, que dit Difonak euh, entre médecine générale et urgence. lii mu def nii moom la ko def ñun la ko defal ñun ndongo yi la ko defal ñun ñii ndongo yi la ko defal ñu ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla di ko fanal wër moo xam ni bëgg yàlla ko suñu borom taxaw sunu papa suñu sëriñ Thierno Mountaga Daha Tall yàlla ko Thierno Mountaga Daha Tall Thierno Mouhamadou Bachir Daha Tall yàlla ko yàlla may gudd fan ak wér yàlla ko yàlla may